وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين والشكور القدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البشير أسبت قولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أسبت قولا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أسبت قولا الجميع بالأماني عبسنا به وبالإسلام فتفصل كل عن الملام خدم سيد البرايا أمدا والأنبياء والمسلمين bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiallahu taala an cheikhina alxadimi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di siyaaranteeg yéen bu baax tey nuyu di siyaara Seex Muntaqa di ko ñaanal suñu boroom dëgëral ko te yàggal ko fi lool ba lim yéene ci liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa ci toolu lislaam wàggale ko nu kawe njortam di nuyu di ñaanal itam Sëriñ Saaliyu Aafiya mi nga xam ne mooy suñu sëriñ di suñu waajur di ko ñaanal yàlla mu dëgëral ko te dimbale ko ba mu àggale naal yi mu naanal suñu aafiya ci toolub suñ Tuubaa mu àggale ko moom itam euh, di leen siyaar ci bis bi itam di ci ndokkeel ñëpp di bis bu am solo di bisu màggalu sëñ aafiya gi nga xam ne tey moom lañu àndoon ak mbokki taalibe yi di ko amal fii ci njaareem ma ciy profité itam di nuyu mbokki Touba Argentine yépp ak mbokki taalibe yépp fu ñu mën ne ne ci àdduna bi ñu di leen nuyu bu baax a baax te di leen ñaanal yàlla tawféex yi nga xam ne ñu ngi koy am ci bis bi ak xeewal yi ñoom itam muy law ba fekk leen foofu Serigne Afe itam nag day koo xam ne day kenn ci rakki sëriñ Touba yi bokk ak Serigne Touba benn waajuru góor ndax Serigne Mamour Anta Sali mooy waajuram soxna Anta Njaay Mbàkke itam di waajuram bu jigéen euh, mu ganee àdduna moom sëñ Afiya Poroxaan ci 1870 ci la gane àdduna xam naa loolu lu ñuy tënk la rek ndax xañ na jataay bi du ko maye nga mën a leeral sëñ Afiya fi jaar fépp benn benn ndax day daal jël ay waxtu yu baree bari moo tax dañuy tënk rek waaye waajuram wu jigéen woowu ma tudd léegi muy soxna Anta Ndiaye di koo xam ne jigéen la waaye mu njëkk a xam li yàlla def ci suñ Tuubaa mu nangu ko ndax bi nga xamee ne sëñ Mor Anta Sali mi nga toll ci di waaj di bëgg boroomam soxna Anta Ndiaye liggéey ci perum sàkket mi dégg sëñ Mor Anta muy dénk sëñ Tuubaa boppam mu daal di dugg ci biir jàpp ci loxol sëñ Afiya ak maam Cheikh Anta daal di yëkkati or bu mu yoroon jox leen ne leen dem leen gaaw jébbalu gi seen mag ju baax ji bu leen ci kenn jiitu ndax jàppoon naa ne lu yàlla bind ci àdduna sëñ Mor Anta Sali moo di sut kon comme dem ba di ko dénk boppam kooku moom leneen la moo tax ci jigéen Soxna Njaay moomu moo njëkk gëm suñ Tuubaa nangul ko ko waaye itam ci góor itam sëñ maam Cheikh Anta ak sëñ Afia ñoo njëkk a gëm suñ Touba ca nangul ko te topp ko jébbalu ci moom. ba ñuy jébbalu ci moom sax booba suñ Touba wooteegut ak taalibe xewagut ndax booba jàngale alxuraan ak xam-xam moo fi nekkoon ndax suñ Mor Anta Sali bi muy dund suñ Touba woote wutoon ak taalibe bi suñ Mor Anta seli nelawee nag. ci la sëñ Tuubaa doo ko wooti nag rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi darsi faxat googu ci la door a ñëwee kon sëñ Afia ak maam Cheikh Anta ba ñuy gëm sëñ tubaa di ko topp booba ak taalibe ba xewagul xamaguñ ko bokkoon ndax ñoom nee nañ bañ koy topp sax xamuñu woon li li sëriñ di doon xamuñu woon ak taalibe it mooy lan euh, sëñ Afia moomu nag euh, nga xam ne bisam ci lañ nekk tey noonu ma ko waxee léegi ci waajuram nga xam ne moo leen tegtal Sëñ Tuuba Sëñ Aafiya tàqaliwu tàqali ko wut ak Sëñ Tuuba ci ak dundam Sëñ Tuuba di nekk Daaru Salaam wala ba muy woote Mbàkke Kajoor ba ni mu ñëwee Daaru Salaam ba Touba ba Thièyeen Jolof ba ni demee ci géej gi ba ñibbi mu àndaat ak moom yoonu gànnaar wa itam yooyu yëpp xaj na danañ ci ñëwaat sax ci kanam ndax yoonu gànnaaroo bu fekkee dañ koy dugg sëñ Afia dafa doonoon koo xam ne dafa bari woon xam-xam lool yàlla may ko it ci alxuraan ndax sëñ daam Abdourahman Lo bi mu ko jàngalee alxuraan ba noppi eh, dañ ko booleek sëñ Maam moor Jaara ndax booba sëñ Maam Mor Jaara mën na alxuraan man goo xam ne ku mokkal alxuraan li fi déglu lu la ba ne mokkal nga rek des na ñu boole kook sëñ moor Jaara sëñ Mor Jaara déglul ko alxuraanam nga xam ne wax nañ ne da ko téyal téeméeri guddi yoo xam ne bis bu set mu téyal ko kaamilu alxuraan mu tari ko ba mat euh, ñetti weer muy muy muy muy muy téeméeri guddi fala fala jaare sax wax nañ ne sëñ aafiya ba guddi gu jot kaamil alxuraan la daan naafila moom sëñ aafiya ak xam-xam jàngum xam-xam itam waaye waajuram bu góor sëñ Maam Mor Anta jàngal na ko lu bare bari ba téere Sëriñ tubaab bi nga xam ne moom la ñuy woowe ummul barahin di ma mawaahibul quddus Sëriñ Tuubaa taalif ko ci kanamu waajuram Sëriñ Mamour Anta Sali Sëriñ Mamour Anta Sali jàngal na ko Sëriñ Tuubaa jàngal na ko Sëriñ Afiya wax nañ ne Sëriñ Afiya ko jàngal sax ak Sëriñ Seex Coro ñoom ñaar Sëriñ moo leen Sëriñ Mamour Anta moo leen ko jàngal ci kanamu nekkuk sëñ bi kanamu nekkuk sëñ Mamour Anta Sali ci la ko sëñ bi taalife Sëriñ Mamour Anta Sali jàngal leen ko Euh, muy ko bari woon xam-xam noonu ma ko waxee ndax boo demee ci yoonu gànnaar wa ndax tubaab yi bi jéemalee suñ tubaab ba sonn mënaluñ ko dara pexe mu ne jéem nañ ko ci lañ leen joxe pexe nag ne leen da ngeen koy yóbbu Mauritanie ndax xam-xam bi ko nit ñi toppee bu demee gànnaar naar yi dañoo mën a mokkal te gaawuñoo fàtte bu fa demee mën nañ koo semmal ci xam-xam dañ ko fay yóbbu buñ ko fa yóbboo daal defe naa ne ni ko mbooloom mi toppee naar yi danañ ko fa danañ ko fa daaneel. moo tax sëñ tubaab ba muy dem gànnaar dafa wax ni ku mokkul alxuraan amoo xam-xam bu ma fekk gànnaar euh, nga xam ne sax wax nañ ne bi mu demee gànnaar teewul dafa am ñu bàyyiwaat ci diggante bi ñoo xam ne kuy ñëw di siyaare sëñ bi gànnaar dañ lay natt ba nga xam am nga xam-xam boo mut xam-xam ñu jël sa àddiya te bàyyi la nga wàññeekuwaat yoonu gànnaar woowu nag ba sëñ Tuubaa dem sëñ Aafe moo jiite yoon wa moo doon tànn yoon wa ñu war a dem kon loolu doy na ci xam-xamu sëñ moom la sëñ Moussa Ka naan ma wax la gaayee santu daam jëm gànnaar ànd ak sëriñ Touba te ñëppuy jàmbaar njëkkeel sëriñ Afe rakkam moo jiite sa sëriñ Mamar Pendaay loxoom du wuute noonu nag sëñ Moussa ñëw gànnaar nag moom sëñ Afiya daal yéem naar yépp xam-xam bu bari bi alxuraan ju mokk ji te neex ndax koor ga njëkk fekk sëñ bi sëñ bi dafa wax sëñ Afe ne ko nay jiite naafi la naar yi sëñ Afiya buy jiite alxuraan ji neex gum neex tax na naar yi dañuy jooy di xus seen kawar yi seen bopp ndax naar yi alxuraan bu neexee moom dootuñu ànd ak seen sabab ba bis nag ñu wax sëñ Afiya sëñ Tuubaa ne ko sa jaam bi nga àndalkat moom dafa man alxuraan lool te bari xam-xam dañoo bëggoon nga jaay ko mu des fii gànnaar sëñ Tuubaa ne leen kooku du sama jaam sama rakk la man ak moom ñoo bokk den bàyyi sëñ Aafe daat koy dégg nag wax ji xaw koo metti ndax taalibe bi kese la bëggoon doon ci suñ Tuubaa mu daal di xëy jël ak buum takk ci baatam ñëw jox ko sëñ bi ne ko dama dégg démb nga ne naar yi sarak laa du ma du ma sab jaam waaye jaam bi la naar yi wax nag moom laa bëgg doon ci yow nga xam ne kooku foofu la tolloon ci pësseef ci dëgg moom ak sëriñ Tuubaa di koo xam ne itam da daan wane sëñ bi ci façon yu bare bari yoo xam ne boo demee ci biirub jaamu yàlla yàllaam nga xam ne dafa mënoon a jaamu yàlla ba yéem ñëpp dinaa fi la kaamil alxuraan guddi gu jot bi sëñ bi jógee gànnaar nga xam ne naari dañ ko daan fekk si di ko toppe nu ne di ñëw sëñ bi daf daan tëju lu baree bari di xalwatu waaye saabu bu xalwatoo day wax ne gani naar yi bu ñëwee nañ leen yóbbu ji sëñ mu dalal leen ndax ba tey bëggul keneen di leen dalal koo xam ne amul xam-xam ñu ciy xeebe sëñ bi ndax ñoom loolu lañ xam waaye gan ñi bu ñëwee sëñ di leen dalal ba bis nag gani naar yi bari ba dal yëpp fees am naar boo xam ne dafa ñëw sëñ dalal ko biir néegam ndax amatul fu mu ko dalal naar bi gis bés bu set sëñ Afe yeeg kàmmilu alxuraan lay naafila def ko ñaari ñaaraak du nelaw guddi bu xëyee nekkaat ci wax juróom yeeg jumaa ji naar bi mujj génn di wër naan xanaa sëñ bi may laajte ñu naan ma daa tëju xanaa mooy sëñ bii ma dal biir néegam ñu ne ko déedéet kooku du kooku du moom kooku rakkam la mm, mu daal di bàyyi rek sëñ bi daal di ubbi nag daal ne sëñ Aafiya gani yëpp dem gan yi fi newoon dajale leen nga andi dajale leen bi mu ñëwee ba jub kër gu mag gi kër sëñ bi simmi ay dàllam bàyyi fa bi mu ñëwee ba jub sëñ bi commencé raam ñëw ci sëñ bi génn àddiyee yi ñu ko siyaaree woon ci semaine bi lépp boole ko jox sëñ bi naar bi di xool di yéemu ba yàgg mu daan ne euh, sëñ Touba mu ne ko yow de man wóor na ma ne yow doonit leneen nga ndax kii ma àndal dal biir néegam ma xam mooy kan ku defal lii rek doonatoon nit leneen nga ñooñu ci façon boobu moom lañ daan wane suñ Touba doon ku yéeme doon koo xam ne ku gëmoon suñ Touba te doyloo ko doon koo xam ne itam Sëriñ Tuubaa feeñ ay ay ay kiimaanam feeñ na ci moom diggam ak maam Cheikh ndax bi nga xamee ne ci nekkub sëñ bi ndax Sëriñ Tuubaa jóge na fi 1927 sëñ Afe ak maam Cheikh Anta jóge fi 1940 kon loolu sëñ bi jóge na fi wàcc leen fi lu mat 13 ans ñuy dundaat ginnaaw bi te teewul nekkug sëñ bi sëñ bi nee woon na sëñ Afe yaay jiitu maam Cheikh Anta àjjana yaa ko fay teeru sëñ bi wan leen ginnaaw maam Cheikh dem segu ba ñëw. tawat topp ko joo xam ne mu xaw faa xaw a lu yàgg ba bis nag mag ñi nga xam ne fekk nañ ba suñ Tuubaa di wax Sëñ Afe naan ko yaay jiitu maam Seex Anta àjjana yaa ko fay teeru mag ña ko fekk woon di wax Sëñ naan ko bu ndax Sëñ Tuubaa neewoon na la yaa jiitu maam Seex Anta àjjana te maam Seex Anta mee ñu gis de mel na ne du dëppaat Sëñ Afe ne leen man de waxi Sëñ Tuubaa ni ma gëme ne alxuraan lu mu wax dëgg la ni laa gëme ne suñ tubaa lu mu wax dëgg la daan na leen waaye nag man jekk naa ndax amee lu ma sama borom bor amee lu ma sama morom bor wax nañ ne daal di woo ak njabootam sëñ xaasim sax nañ ñu ne moom la woo ko bismillah nañ dem wax sëñ Modou Farmata ne na toog su digloo ak njaboot gi nga xam ne njaboot gi bi sëñ Afiye tàggatoo ak ñoom am na sax ay benn benn yoo xam ne dañ doon jooy ndax xam nañ ne sëñ Afiye mii du dab daaru salaam gisee maam sant ñu tëju waxtaan seen waxtaani baatin ba waxtu julli jot maam seexante ne si ñaafe dama nga jiite fere yi ñu julli maam seexante bi si bi mu ñëwee di leen jiite ba ci taaya ju mujj ji wax nañ ne taaya ji yàgg lool bi taaya ji yàggee sëñ Mor Faati Touré ab jarbaatam la bokkoon ci julli gi daal di salmal daal di ñëw laal sëñ aafiya mbàkke ndeke sëñ aafi génn na àdduna ci biir julli gi waaw nga xam ne bi muy taaya taaya ji yàgg lool nekk booba génn na ci biir julli gi la sëñ Mor Faati Touré mi nga xam ne ab jarbaatam la woon daal di sëlmal laal sëñ aafiya naka sëñ aafi dem na bu yàgg nga xam ne biñ tàggee ne sëñ aafi génn na àdduna dañ ne xanaa moom dañoo jóom xanaa maam Seex Anta la ñuy wax ndax sa ñaafe ku nekk naan sa ñaafe romb nañu fii léegi waaw ku nekk ñi naan sa ñaafe moom dara jotu ko woon xanaa maam Cheikh Anta dañuy wax ba ñu yóbbu si ñaafe di ko denc ca fajar ja maam Cheikh Anta génn àdduna ñoom ñaan ñi bokk ndey ak bàyyi ni leen ko sëñ bi waxee woon nga xam ne dara dañu ca nga xam ne loolu am jàngale ci ne suñ Tuubaa moom lu mu wax lu mu yàgg-yàgg danañ ci teg suñ bët suñ bët suñ Abdou da daan wax ne sëriñ Tuubaa de lu mu wax ku gudd ab gis boo ko xoolee gis ko ci lawhul foos waaye boo gàttee gise lu mu yàgg-yàgg da nga gis waxi sëñ bi kon ñoom façon boobu lañ doon wane sëñ bi di koo xam ne nag bis bii nga xam ne moom lañ koy fàttalikoo tey di ko tudde màggalug Sëñ Aafiya doon loo xam ne bañ ko tàmbalee itam yàggut ndax euh, xalifa Sëñ yi fi jaar ñu baree bari kenn ku nekk ak sa mission ndax sëñ Moodu Farmata Mbàkke moo njëkk a wuutu sëñ aafiya waaye moom mësta woote bis bii xaj na ci neneen la ko daan wootee di ko ñaanal di ko ñaanale sëñ aafiya sëñ xaasim mbàkke itam bi mu ñëwee wootewu ko euh, sëñ abdullah karam moom itam ñëw na fi toog jataayu sëñ aafiya lu yàgg moom waaye wootewut bis bii ñoom ñooñu kenn ku ci ne ak sa mission ak euh, nanga nga doon liggéeyale sëñ aafe di ko liggéeyale sëñ Tuubaa ci beneen fànn fànn yi bokkuñu naka doone itam sëñ Gede Mbàkke nag bi mu ñëwee wóotu ñooñu ñëpp magam yooyu ci la njaboot gi fi des waxtaane nag daat ne dañoo bëgg nag bis boo xam ne bu ñëwatee ñu di fàttaliku sëñ Aafiya Mbàkke te sëñ Gede bi mu fi toogee yàggut ndax sëñ Abdu Karam 95 la fi jóge defe naa wala 96 waa diggante yooyu bi mu fi jógee nag toogaat nañ sax ab diir njaboot gi doo ko waxtaan waxtaane loolu booba dañ koy waxtaane sëñ Saaliwu Afiya mii tey nga xam ne moo toog a jotaayu Afiya fekke woon na waxtaan woowu àndoon ca ba am yu baree bari yum ca waxoon ak yu xaw a bàcc na sax yoo xam ne xaj na bu jotaay bi guddoon du ñàkk ñu xool nuñ ko mën a waxee waaye bi biñ ci waxtaanee nag ci leen ñëwee ci sëñ Saaliw daat koy laaj ne ko dañoo bëggoon bis boo xam ne dañ ciy fàttaliku sëñ Afiya Mbàkke di ko ci ñaanal ñu jàppoon nag bés bi nga xam ne ci la génne àdduna sëñ Saaliw daal ne bés bi mu génne àdduna bésu naqar la boobu waree su ko màggale daal di laaj ne ban bés mooy bis bi nga xam ne moom la suñu Tuubaa joxoon si ñaafi ndigalul jumaa ji mu di ko jiite ñu wax ko ko bu daan ne jël bis boobu di ko màggal muy bis bii tey xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru muharram saa yu ñëwee ci muy weeru tamxarit saa su ñëwee rek mooy doon màggalu si ñaafi mooy date fixe bi Euh, di ju bi ko sëñ saari diglee nag ñu daal di jël bis boobu di ko màggal nga xam ne bis boobu kon ndigal li sëñ tubaa joxoon si ñaaf yi muy jiitu jumaa ji ñun moom mooy bis màggal si ñaaf ndax sëñ moo sëñ Fat Tàkk Jóob sëñ Seex Fat Tàkk Jóob am na kaset bu mu def moo doonoon bëkk néegi suñ Tuubaa wax nañ ne am na kaset bu def di ci leeral euh, ki suñ Tuubaa mujjee waxal nee na si ñaafi la suñ Tuubaa mujjee waxal ndax sëñ bi sa ñaafi sëñ tubaa da koo woo tëjoog moom lu yàgg daal di génn di ko gunge nee na ba sëñ bi gungee sëñ yaa dana ko kon jumaa jaa ngi noonu waxtu juróom yi ak gàmmu yi loolu la ko dénk nee na ba ma dëppee maa ngi naan sëñ bi soxna suñ naan soxna Fat Sarr batale na batale na la batale na ma ci yow waaye nee na sëñ bi waxut ak moom wuyuwu ko daal dugg ci biir nga xam ne nee na ki suñ Tuubaa mujjee waxal mooy suñ aafiya ki mujjee jox ndigal mooy si ñaaf te ndigal loolu la ko jox muy ndigalu jumaa ji mooy bis bii tey ñuñ màggal nga bis boobu bi ko sëñ bi joxee ndigal li daa tëju bi mu tëjoo mi ngi mel ne eh, tey la alxames moom la ko sëñ bi jox ndigal li ajjuma samedi sëñ bi génn àdduna mooy samedi mooy doon màggaluk daaru gi ñoom bis bi sëñ bi génn àdduna moom la ñuy fàttali sëñ bi samedi lay war a doon nga xam ne kon bis bi ndigal la ndigal lu suñ tubaa joxoon sëñ aafiya la ndigal la itam loo xam ne sëñ Saaliw moo ñëw feddaliwaat ko joxaat ñu ndigal loolu ñu di ko fàttali ko sëñ bi ba barki dem bi ma sëñ bi yónnee ak sëñ Mutaxa itam noonu laa ko jottalee waaye na ko waat nag sëñ bi teewul ndigal yooyu yëpp mi ngi koy feddaliwaat ci yow loo joxe ndigal ci bis bi moom lañ ciy def mu ne ma bàggee ne ko joxe nañ ci ndigal nañ ci ñaan ñaanal ci sa ñaafiya sant ci yàlla sant ci suñ Tuubaa kon loolu moo moo mooy moo moo mooy jataayu bis bi tey bu ko defee nag képp koo xam ne teew na ci na nga ci am rafet njort te xam ne yàlla mën na ci def tawféex ndax Sëñ Tuubaa dafa wax ne laata laa tafaaloo shay'an bi gayri isnin fal isnu shartun fi xaboli sha'ni nee na bul def dara te amoo ci ndigal ndax mbir mooy dugg boo ci amee ndigal day wane ne mooy sart buy wane ne nangu nañ nangu nañ mbir ma kon lii sikkuwut ne Sëñ Tuubaa nangu na ko bis bi bis bu baati ne la ndax bis la boo xam ne yeneen yu bis yu baree baree bari ya fay am boo ñëwee ci bis bii doo ko fekk buñ ko ci doon jéema a def sax du ci mën a am kon nag ñu ngi ñaanal sëriñ Saliou Afia mi fi des ci njabootu sëriñ Afia yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér di ñaanal itam sëriñ Moustapha mi nga xam ne rakkam la tey itam <coughs> ñoom ñaar la fi sëriñ Afia dese ci ay doom yu góor ñi ci des ay jigéen lañ ñoom itam yàlla bàyyi leen fi ba doon na ko bëgg liggéey Sëñ Tuubaa ci yoon wi seen mag yu baax yi leen jiitu itam amoon yéene liggéeyal ko si ñoom it lépp ñu àggale ko ci barki Sëñ Tuubaa kon ñoo ngi sant bu baax xañ na bu yàlla dogalee ñu amaan yeneen jataay yu yu gën a yaatu danañ gën a leeralaat ci dunduk Sëñ Aafe lu baree bari ndax euh, liñ ci génn nii wax ko ci tuuti rek la buñ toogoon fii nag di ko wax xaj nag ginnaaw tey bés bi dafa yaatu teyit euh, ñu jox ñu ci ay liggéey yu baree bari yu ñu war a taxawee buñ toogee fii di ci waxtaan ak yéen euh, mën naa am ñu am fuñ ñuy xaare ndax téléphone bi defe naa boobu ba léegi mi ngi sone afiya te xam naa nit ñi soxlaa ci liggéey bi la kon dañuy wàcc noonu suñ kàddu di sant ñëpp di garam ñëpp di leen xamal ne buñ fi amaatee euh, ci diggante bi jot gu mën a doom rek bu sooba yàlla dañuy yaati laata yéen incha allah ñu ngi sant ñëpp yàlla na yàlla defal ñu tawféex bu baax a baax te bii itam ñu def sëñ Tuubaa euh, nangul ñu si na mu nangala woon sëñ Aafiya lépp yàlla yàlla defal ñu ndimbal saayir ak baatin barab bi ñu nekk mooy fan waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli yi mbokki taalib yi ñu ngi leen baax te di leen ziyaare di jiital suñu yooyu ak siyaar bi Serigne mun moom Cheikh Mamadou Bassir di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér eh, di nuyu mbooleem jëwriñu eh, Serigne Mountakha yi Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké xalifa eh, Darou Khoudoss mi nga xamante ni moo jiite kër gi mooy yor kilifteef kër gi ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ak mboolem njaboot ak Serigne tubaax Xaadimu Rasuul bu baax a baax baax di leen nuyu. Euh, ku si nekk buntu kër yëpp ñu ngi fay jaar di yi ñëpp di leen jox seen wàccuwaay euh, di wax ne laaj bu ñu laaj sëñ bi fii nag mooy jàkk yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul fi nga ñu fekk euh, mooy jàkk ji Serigne Touba Xaadimu Rasuul daan jullee waxtu juróom yëpp diiru fukki at ak juróom yi fi nekk fii la daan jullee waxtu juróom yëpp jàkk ji nag ba fi sëriñ bi julli mil tonnes yi ab baraag moo fi nekkoon Euh, baraagub seng euh, mooy baraag bi nga xamante ni fi la sëriñ bi photo woo photo bu siiw bi nga xamante ni benn foto rek la am euh, nga xamante ni moom moom fi la fi la photo photo boobu la baraag boobu bu duggee ba ci biir daan ko insha allah mm-hmm. wante sëriñ bi moom benn tabax rek la fi bàyyi muy jumaa ju mag ji moom moo ko tabax ba mu pare ci kanamam ñaari at mm-hmm. wante taxul mu fa jaar jullee di di eh, diiru fukki at ak juróom yëpp rek fii ñu taxaw ni moo doon mihraab bi suuf si nga xamante ni moo nag ci biir tamit fi la daan jullee waxtu juróom yëpp ah, kon nag bu ko defee ah, waxtaan mi nga xamante ni moom la sëriñ bi daan waxtaanee mag ñi mm-hmm. ah, tomb yi mu daan tomb eh, di ci yee mag ñi di leen di leen di leen di leen di eh, kii seen borom di leen di leen soññ bu baax a baax fii la ko daan defee wax ci barke bu laa bii la ko daan defee kon nag fii mooy bokkatu mubaaraka fii mooy jàkkee Serigne Touba fii la Serigne tubaa daan jullee waxtu juróom bu ñu mënee wax ne xolu kër gi kër kër Serigne Touba bu ñu naan bu ñu dee wax xol fii la fii fii fii fii mooy xol bi. Mhm. waaw jàpp naa ne képp koo xamante ni doo du fi waaye ñëw indi rek. bu ko bu ko bu ko bu soxlaa rek bu ko booy sàkkoo rek suñ borom mën na koo defal ci barkeb Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaw bari nañu fi ñëw di sàkku seeni ñaan suñu borom di leen jàppandil la ñuy sàkku waaw liñ ci li ci liñ ci yitteel tamit mooy euh, saytu barab bi ngir ñool ko ngir gën see taxaw ngir liggéeyal Serigne tubaa boo tax na moo tax ku ñëw boo xamul dañuy xam dañ lay xamal suñ kemtalaay kàttan li ñu xam mooy nga julli ñaari rakka boo dee ziyaare daal di julli ñaari rakka daal ci toftal say ñaan eh, ñaan si li nga say say aaj yëpp loolu rek lañ ci lañ ci lañ ci saytu wante fii daal moom li mën a tënk daal mooy barabu Serigne tubaa la fi la Serigne Touba daan jullee waxtu juróom yëpp diiru fukki at ak juróom yu nekk fii ci Njaaréem bokk xatul mubaarak parce que am jàmm incha waaw ah, asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen nuyuwaat baax a baax fii ñu ne nuyoo mooy baytul kitaab ah, di kàggu Serigne Touba gi fii se fi ñu denc bagage Serigne jeex yi nga xamante ni moom la fi Serigne Touba bàyyi fii ci njëriñ mu nekk ci barab bi ah, gaal yi nag eh, lépp gaal ay gaalam la mooy gaal yi nga xamante ni moom la yóbbu ci tukki bi mooy ci géej gi bu ñu demee Gabon. demee gànnaar demee fépp man maa dem daal gaal yi ci biir moom la sëriñ bi euh, fii moom yi nga xamante la sëriñ bi bind jaay euh, yi ñu ngi jël bind jaay te ngir teel fii la ko euh, nga xamante ni moom la sëriñ bi daan jàppoo moom mi ngi fi ak lal boo xamante ni sëriñ bi si la daan teg alxuraan yi ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir kàddu ak ak ak ak ak mboolem kë këll ak këll boo xamante ni sëriñ boo moom ak kaabal ak ak ak bi nga xamante ni fii la so fii la daan def sondeel ngir di ji mën a leer ndax sëriñ bi moom amutoon benn jot waaw ah, moom guddeeg bëccëg lay mën a woon lépp lañ daan tafir bi sallallahu alayhi wa sallam ci sant borom kon daal fii képp ku nekk ci àdduna ak foo mën a nekk boo fi ñëwee fii ci njëriñ xam ne mu baax incha allah day gis mboolem euh, jeexal sëriñ bi li nga xamante ni sëriñ bi moo ko boppam ak bunt bi nga xamante ni moo feeñ ci euh, photo boobu benn photo bu siiw bi tamit moom fii la nekk gaa yi tamit li li ci nekk alxuraan rek moo ci nekk ak leen ca xasida tool na ci juróom-ñetti fukki kaamil ak ñeent yoo xamante ni xattu yëdd yi la ak juróom fukki juróom ñeent fukki kaamil ak juróom yoo xamante ni bindum naar yi moo mooli naar yi moo nekk ci biir kon sëñ Tuubaa li mu woon kenn du ma doon ci alal ci xam-xam rek la may doon lu wér wér la euh, da ko da ko jëf da ko jëf bàyyi kon nag euh, lu ku ma sa bàyyi loolu ci alxuraan man fóoma ko kon nag euh, ñu jàmmale ko waxtaan bi sant sëñ képp koo xamante ni daal ñëw nga fi ngir yittewoo bagage Serigne Touba bi ngir bëgg allah boo fi ñëwee daan la teg ci yoon boo xamante ni incha allah da mën a siyaare siyaare neexal te am solo lool. fii ñu taxaw tey jii mooy baraag bi. baraag bi nga xamante ni moo njëkkoon nekk jàkkee sëriñ bi euh, fi sëriñ bi doon jullee fukki at ak juróom baraag bi nga xamante ci la nekk ni tey jii euh, foofu la nekkoon bi ko sëñ Cheikh Mbacke tabaxee 1961 nag lañ ko toxal am na bërëb beneen bërëb bu njëkkoon nekk wante ñun bu ñu fi ñëwee dañoo xam ne fii la gën a jekke fii la gën a jege ñu indi ko fi comme nam taxe woon rek lañ ko taxawaleen wante li ci dollee ko tamit ñu ci def mooy euh, aar dénk bi nga xamante ni si la sëriñ bi wéewu photo foto photo photo bu siiw boobu benn photo bi nga xamante ni moom rek la maye. Euh, ñu aar ko ñu fexe ba aar ko ci ci vitrine bii wante euh, dénk yaa moom boo duggee ci biir boo xoolee dangay gis ne dénk yaa ngi ci biir vitrine bi euh, mooy foto bu siiw bi nga xamante ni moom la sëriñ bi photo li ci dollee ko tamit mooy am na foo xamante ni fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si woon muy fu naan bayti rasul fii si fii si bu baax fukki at ak juróom fukki fan ak juróom la ko fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si woon Serigne Touba mooy néegu karol bi nga xamante ni moo nekk ci biir ak fu naan pàkk junnee foo xamante ni tamit fa laan doon duyee ñetti téeméer eh, ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci ay ndaa yu fa nekkoon yoo xamante ni buñ ko duyee suba buñ ko buñ xëyee day day jeex tàkk te nit ñi duñ ko duñ ko jëfandikoo kon taalibe yi Serigne Touba yi nga xamante ni kenn du leen gis ñoo ko daan jëfandikoo muy jinne yi euh, moo nekk mu ngi ci biir kër gi tamit moom euh, pàkk jinne yi lañ ko jënd lañ koy waxee wante ñun tamit kees jinne yi lañ ëpp luñ koy wax man daal loolu mooy barab bi nga xamante ni barab bu barkeel la barab bu sell la barab bu am solo la euh, pàkk bu pàkk bu neex a jaamu yàlla la ndax Serigne tubaab doon na fi jaamu yàlla 1912 la fi ñëw ba 1927 loolu Serigne Touba nekk ci parti bi fu nekk mu teg fa tànkam boo fi xasee dugg foo teg sa tànk rek Serigne bi tegoon na fa tànkam ba tegg loolu lu gën a kawe loolu amul si àdduna loolu nag moo tax képp koo xamante ni yaa ngi fi ñëw war nga fee ñëwee ak yar ak i teggin ak pas-pas ak laabal sa xol laabal sa yéere laabal sa jikko ci ci ci rafetal mm-hmm. moom lañuy moom lañuy moom lañuy soññi ñëpp heure bu ñuy wax ci média loolu la ñuy wax ngir ñu mën a waajal seen bopp ci ne dañuy jëm dem si këru njaaram gi ngir siyaare faaw ñu waajal seen jëmm ak seen col ak seen seen melo ak seen seen xol laabal seen xol tamit lu ci ama am solo ñu ngi koy yamale foofu waxtaan bi di ñaan képp koo xamante ni am nga yitte rek ngir ñëw fi suñu borom jàppandeel sa yitte lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf كل نفاق بنفسي بالنبي صلى عليه بسلام